bu ñu yaakaaree ni ay ndaw Pastef ndaw opposition ndaw Yewwi. déglu leen bu baax. ñoo ciy ñàkk seen bakkan wala ciy tëj kaso juum nañu de. déglu fii. gatsa gatsa rek léegi gatsa gatsa. fii dafa sës. Ousmane Sonko bi muy wax fii maa ngi jàkkaarloo moom nii taxaw nii nii maa ngi taxaw nii sama xol maa ngi woon may ngi maa toog ci dëkk bi ni Macky Sall di gouverner réew mi. maa ngi ma ko woon quoi man amoon na bi quoi léegi rek voilà vous voyez des patriotes yoo xam ne voilà léegi dañuy wax sax nan man bàyyi naa Ousmane Sonko patriote bu bàyyi ko Sonko yaa xam. en commençant par a fen yow yaa mën a ñu ko ci jàpp cinq personnes gis naa si koo xam ne doon na ñu ñaar ñi ma gis ñu ngi cinq di dawal seen cinq ans kaso xaw ma si xaw ma six six sept ñi ko rey gis naa si koo xam ne borom seret la benn benn xale bu ndaw di dawal seret mu ngi rëbës fii. tey ay nit ñooy jàpp Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko li mu la wax yëpp du amul parce que ay privilège parce que lan parce que lan non investir leen. gis na ci ay ay nit yoo xam ne sax dañ doon am li ma si parti bi fii amul lenn lenn lenn lenn li nit di si parti bi lu ma Sonko dajut si parti bi fii amul lenn lu nit def Ousmane Sonko dajut xanaa à part ñi dee ñi faatu à part ñi faatu naqar gi ñu am seen naqar gi ñu am à part ñooñu gisuma kenn ku dul naqar dul Ousmane Sonko man mii di wax lu Ousmane Sonko dund président Sonko lu mu dund dund ma ko genn wàll gi bu mu ko dundoon faatu naa parce que là quand vous quand vous voyez Ousmane Sonko bii wax naan gasa gasa mu ngi yi muy nekk nii mënut ko damay gis ay nit yoo xam ne barki dem fi leen kon Ousmane Sonko dañ la nangam dañ ko laal ku ko xee jékki-jékki rek changé changé tournant nag ndaxaw nag nee na yàq na Ousmane Sonko Ousmane mu leen yàq xam lu tax parce que wóor na alquran al Ousmane Sonko bu ñu tegoon seen ruuy teg seen ruuy papa yi yéen ñëpp ñu jël ruu Ousmane Sonko bi dajale ko barke alxuraan ke bosom dina dem dema dem na ba si Ousmane Sonko na ko maa ngi nii yaa moom parce que bokkuñ leen bind du juddu du du du doxalin du demin du yar du dara bokkuñ leen yow yaaroon wax Ousmane Sonko tey man Ousmane Sonko nangam booy nangam nangam Macky Sall mii dafa bëgg rey Ousmane Sonko ku ko laal tey yow nga ëlbatiku ma gis na nga dugg live Ahmed live fu Ahmed Cissé mooy le le soi-disant rassemblement la li may bëgg a wax rek juste rek mooy euh, di nga bu leen kenn détourné si seen objectif mooy lan yéen ñi xam ne da ngeen bëgg Ousmane Sonko mu jaral leen guddi ak bëccëg depuis 2014 ngeen ne si parti bi di xeex parti bi ne si parti bi di jubal si parti bi di yedd parti bi maanaam ñi ñu fa ne ngeen di yedd di leen di leen di leen di soutenir bu leen kenn kenn kenn influencé di leen dugal ay non Ousmane Sonko ak Diomaye mënuñu dafa réew mi amul fenn fenn fenn fenn fi ñu ko bind léegi rek ñu bëgg jàpp gis na ñoo xam ne sax léegi dañuy nekk si beneen boor bi sax li ñuy wax léegi waa non man de damaa bëgg damaa bëgg jomaay waaye sonko neexut ma ku bëgg sonko ku bëgg jomaay bañ sonko naa fekk nga ku bëgg bañ sonko naa ku bëgg sonko bañ jomaay naa fekk nga man maa ko wax waaw kay bu leen kenn yóbbaale si ñàkk fayda même ay xarit même ba seex sa xarit sa xarit bu mu dugul ci ñaka fayda même ba si andando bi ngay andando nit bu mu dugul ci si fayda ndax bu ëllëgee bu si ya problème day daw rocceeku bala fa boy and àndal nit ci dëgg même ba sa papa sa yaay del del del nek ak moom si del del wax dëgg chaque jour même do sax papa sa yaay la même del wax dëgg mais anak ak sa xarit mu lay dugal di dugal dila jox ngay lek do dugal ngay jox lek ba nga nak ñu ne tal da ngi ni ñu ne kay ñaan ah man suma xamone am na ñu bare bare bare bare bare bare barki alquran karim ana no ko bal motax duggu kasso bu len kenn yàqal sen amour ak Ousmane Sonko bu len kenn duggal li ngeen sen xato ak Ousmane Sonko bu len kenn yàqal li ngeen bëgg Ousmane Sonko li ngeen ak Ousmane Sonko li ngeen ko jàppale li ngeen ko soutenir jàppale ko jàppale famam jàppale ay wajurum jàppale yaam jàppale ay mbokam bàyyi damay gis ay mbaamu xaram ay kenn xamul soi-disant Baay Faal la kenn xamul daa tux yamba daa tuxoo tuxoo tuxoo ko ñaanut bokk na si jigéen yi ñëkk a faatu si biir Pastef engagement bi si biir Pastef ba ni ñuy jëlee bakkanam tey kooku nga war ñaanal suuf ooy si kaam tey nga war ko ñaan ay njabootam buñ la gisee sax fier nga waroon écrire sa dix mille wala sa téeméer fekk doomam ma doomam Mariama Sarr ngañ na ko am loolu mooy fierté patriotisme nga doo ko def man de mën na ma wàcc yàlla ne mën na ma wàcc sëñ Touba mën na ma wàcc sëñ Fallou ne bés bu ma bàyyi Ousmane Sonko daa fekk mu suul ma wan man Ousmane Sonko jomaay bés bu ma leen bàyyi daa fekk ma daa du daa fekk ñu gas ma suul te xam naa ne bu ñu ma gasee suul duñ ma bàyyi ndax seen ñaan fa la may fekk xaw ma kan la ak naka la ak fan la ak uwa yàlla rafet ay Fatoumata Danso taxaw man sama yaay la woon mais bi mu taxawee commencé am affaire kanam yooyu di commencé saaga ay leader damay gis sax des fois même si Facebook bi sax ay ay yaayu sëñ Saliou ay Babacar bi nga xam ne maanaam ko si part bi mu ne moom dafa bëgg si parti dafa dugg si parti tey maa ngi gis mu posté ne mu ne Babacar Babacar Sow mu ne euh, feebaru kaw nag ki lañ ko teg euh, kii la euh, Ndeye Roxe Ndiaye la le problème de Kaolack c'est Ndeye Roxe Ndiaye ma ko da ngay fen kaolak amul ben kaolak manam le borom kaolak du ben dom adama du asan du man du keren du mère du serigne du keren problème kaolak Kaolack sa ça concerne les kaolak wa problème kaolak kaolak la Kaolack mo Kaolack mo am problème lolu état rek mo ci mën dimbali état kese mo ñu mën dimbali problème Kaolack bi muy wax ay wax dafam yoy non ma wax ko téléphone Hannibal Djim ci bopam bama ko woy manako yow ya and rek Babacar Babacar saw te xam nga Babacar Sow fi mu nekkoon APR la nekkoon si euh, kii la nekkoon euh, si Ousmane Neyo la nekkoon bi mu ñëwaat Ousmane Neyo si affaire affaire vidéo yooyu noonu am naa solo le motif ak amuma si Ousmane Neyo porte plainte ba ñu ko trois mois de bi ñu tëjee trois kaso mu xam ne amatul amatul amatul APR dara mu reculé nag ñëw si biir Pastef bi mu ñëw biir Pastef xaw ma nu mu doon def ba gaa yi jàpp ko xaw ma dafa amoon bor nit xaw ma daal mbéy mu jàppuñu ko si problème ka problème mu dina politique. bañ nañ ko bu ñu leen détenu politique Babacar Sow bokkut ci man maa ko njëkk jox bi bi mu duggee kaso maa ko njëkk a jox bi mu sol man maa ut man maa ut jël sama yére bi may sol man jox ko Babacar jël sama café lépp jox ko parce que bi mu ñëwee loolu la présenté loolu la ma présenté wu dañ ma jàpp ndax Ousmane Sonko ma am am si moom yërmande am si moom ñeewantal jël sama café jël sama sukkar ak lépp ak meew jébbal ko ko tey Babacar mooy taxaw di xas ay leader di xas ay ngir kaw la nga ne a a un problème a amul problème Pastef Kaolack amuñu problème même bu que Pastef Kaolack ñoom problème ay nit ak nit loolu ñom c'est interne man dama man problème problème Pastef en interne ñun ñoko avons a régler suñu sur suñu biir mais pas de réseaux sociaux di nga li xaw si a APR duñ ko buñ ko indi biir Pastef problème. ko président ko dina président problème. am na ay détails yoo xam ne ñu ngi koy bëgg yéen si biir parti bi te ay xale yu ndaw lañu barke Demba Ndiaye la ñu si biir parti bi du ma nangu ñu yàq bi ñu yàq parti bi. j'ai appelé Abbas Fall woo naa tonton Waly Diouf Bodiang am na ñu woo ñu bëri si kilifa yoo xam ne woo naa leen interpellé naa leen bi wooy Hannibal Djim ma koy woo si problème mu Babacar mu ne ma su ma leen négocié ma ne ko yow yaay ànd ak Babacar woowal Babacar nga expliqué ko mu qu'il arrête qu'il arrête de publier des choses yoo xam ne si suñu problème interne la parce que y' a pas de ay problème mu Kaolack problème mu Kaolack nu mu leen nekkee benn doomu aadama problème mu Kaolack nu mu leen nekkee doomu aadama ah ok léegi bool bi dexul ndey roxee njaay la léegi sokosin bi dexul ndey roxee njaay la tali yi ba ni ndey roxee njaay la léegi lu am si biir Kaolack yëpp si biir Pastef ndey roxee njaay moom mooy mooy moo ko def te moom la Ousmane Sonko teg teg foofu noonu muy tête de liste tey Babacar Sow amul lenn li muy def naan non ma koy woo mu ne ma non ëppale ma man ëppal je ne suis pas là pour ëppale nit wala ëppale ma keneen mais da ngay respecté maanaam sarti ndeyu parti bi sartu ndeyu parti bi mooy nit bu la jiitoo da ngay topp si ginnaawam waaye fekk nañ si biir parti bi bëgg a bëgg a bëgg a jaas baat bi duñ ko def ko def de. parti mom moom cocc lay def du doon parti bo xam lu way wax lu way bëgg wax wax je l'ai parlé à bassal j'ai appelé à bassal woo naa Tonton Waly Diouf dégg ko bi ma woowee Hannibal Djim mënuma su ma yéen nekku si bu ma duggoon seen jaax ma ne ko Hannibal Djim di nga bul ma fontoo laa wax bul ma fontoo ay nekk ministre taxul nga font nga may fontoo man du ma som morom mag loo ma mag fukk junni yoon si yaa may dégg mag loo dama bëgg nek nit ay non ay non ma ne ko yow man may kilifa woo la en tant que kilifa woo la jël sama téléphone woo la di leen expliquer nga ne ma non soo nekku ci di da ngaa seetlu naan ma Babacar indi ma ko ci parti boo ko indi ci parti yow la Babacar di àndal chaque jour bu dara xewee yow laa mën a interpeller waaw ah, yow si boppam yow mii yaay interpeller parce que yow yaa ànd ak Babacar ma yoo xam ne ma ne duggul ma ko ci biir parti bi. man je ne pas je ne pas demandé que da nga dugg si parti bi duggaloo fi parti bi man xam naa duggaloo baa ko si parti bi mais il faut ñu arrêté di diaboliser ay ay leaders si biir parti bi man du ma nangu kenn ku xas benn leader si biir parti bi muy ministre muy député muy keneen ak keneen du ma nangu kenn ku leen laal nag parce que man je suis là je suis leur je suis leur avocat man maa leen défendre man. bu ma gisee loo xam ne nag jaaduwul dinaa leen woo téléphone ah man wax dëgg yàlla gis naa lii gis naa lii gis naa lii est-ce que lii dëgg la est-ce que lii dëgg la. waaye yow jékki rek gis sa benn bëgg bii am na ñoo dañoo bëgg buzz man maa bind lii man maa jàll information bi ñun am nañu ay information yoo xam ne bi ko bi ko waxoon tey jii nii tàkk waaw duñ ko def ko wax waaye dañoo ànd ak ay kilifa dañuy tëj suñu làmmi nii miig miig boobu ñuy topp suñu biir bàmmeel nit da ngay am bàmmeelu biir daw loo xam am bàmmeelu biir nit da ngay tëj sa wunu ko maa bi tëj leen seen wunu ko maa bi booy ànd ak kilifa da ngay tëj sa regroupement bi mooy waral ne des fois nga dem si kilifa di ko nuyu mun la sabaa nga ne ko moom dafa commencé soof de moom ne dafa soof léegi moom maa ngi koy du ma koy woo sax du jël parce que tëjoo sa làmmiñ parce que doo nit boo xam ne da ngay garder secret loo xam wax ko si internet bi loo xam bindi loo xam wax nit du mel noonu tëj leen seen làmmiñ tëj seen mënu ko maa bi parti bi du parti boo xam ne ay parti nettali la du parti fenkat parti fenkat ñëpp xam nañ ko waa APR ñoo fi génn di fen di duul di jaxase ba tey jii nii yóbbee Ousmane Sonko ñu tëj ko kaso tëj ñu ñeneen ak ñeneen rey ñu bari suñu frère ñii tas nañu ñii fase nañ leen tey du man sa du ma nangu loolu du ma nangu loolu ay nit jógee APR ñëw di dirigé biir parti bi du ma ko nangu wax naa ko Abbas Fall boo mu dégg ko parce que lii c'est lui mon coordinateur à Dakar c'est lii mon coordinateur à Dakar nit ku nekk da nga am kilifa damaa woo sama kilifa expliqué naa ko du ma nangu nag benn xale bu ndaw jugee APR ñëw mu ngi dirigé biir du ma ko nangu de du ma ko nangu du ma nangu ku yàqal Jomaay du ma nangu ku yàqal Ousmane Sonko lu ma gis par loo xam ne neexuma wala naqari ma gis naa mu naqari ñëpp dinaa woote kat ci suuf woote amiablement ah man kat kilifa gi gis naa lii nangam nangam lu demee wala nangam nangam. nga xam ba pare balaa ngaa wax eh, balaa ngaa joxe dara dangay xam information bi ba pare c'est où c'est comment il faut nga xam ko waaye bëgg a bës man maa génne lii man maa bind lii.